FM Oustaz Mor Thiam yegsi na salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu Hadj Babacar delloo nuyoo bi ak ziyaara. jërëjëf Oustaz yóbbalu bés bi. waaw Hadj Babacar bi day dafay ñëw rek jëm ci loo xam ne dafa war ci diggante njaboot ak way juram te lépp luy xeetu mbaax mu war ci diggante njaboot ak way juram ndax njaboot féeg mi ngi toppatoo way juram di ko bàyyi xel te di ko toppatoo di def lu mu mën lépp lu mu jotagul dafa yëgseegul waaye sunu boroom itam mën na koo ubbil ay bunti wërsëg dindil ko ay bunti jaaxle-jaaxle te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko ci ñett ñi nga xam ne duggoon nañu ci xuntuma te xeer ya tëjoon leen ka doon dimbale way juram la mu ci amee woon donc kon nag nit féeg mi ngi mi ngi bàyyi xel ñaari way juram di topp ñaari way juram di leen ñaanal di ñaanal boppam incha allah lu mu yóotu da ko yomb loolu tax ñuy joxe ñaari baat yu gàtt yoo xamante ni bii jullit bi mën na koy wax jamono bu nekk jarul muy bari jarul muy gudd même bu nekkee benn yoon la koy wax walla mu koy wax ci gannaaw julleem wala su toogee bu fuddoo rekk wax ko loolu dana ko jural mu effacé bàkkaaram dana ko jural mu jokk mbokkam ñaanal way juram te mooy ngay wax rabbiix xfir lii wali walidayya rabbi xfir lii wali walidayya mu ngi noonu xaaj Babacar jaajëf jaajëf oustaz Mor